Germaine ça va. eh ça va vidéo. waaye tey dangaa teel a wàcc. waaw gis nga tey moom journée spéciale tey la sama anniversaire de mariage man ak Mass. félicitations. xoolal soo paree li ngay def rek mën ngaa ñibbi. ah waaw. dama ko bëgg defal surprise. kon baax na. d'accord ok maa ngi jàll ci biir. waaw d'accord. ma la tuwaat te fi nga génn. ku def lu rëy am lu rëy. Sénégal Ndiaye maa fi gën jabar. Sénégal rek. dama juum du ma ne Sénégal rek de partout dans le monde maa fi gën jabar bi xëy ñax na de xaama daw gaaw balaa mu yàq sama koor. taaw yaayam. yaay booy. mag jàmm. ça va waaw ça lu xew. dara. lu xew yaay lu tax bëgg nga ñëw woote ay yow bu may ñëw ci yow dama la war a woo. am rendez-vous suba war fee fanaan dama la ci war a woo. <laughs> àdduna tukki na. Faama ah, mu ngi ci waañ bi. ah mu ngi fi. bu ñu gisul it dégg nañu du génn wala day baxali xeer. wax dëgg du yaa ko sa bopp. demal ñi lu xew dafa taal seeni buusi nii. bëgg yëfu ñëpp riita rek. luy ñëpp riita. tubaab. jabaram ji di tubaab tubaab lu te du tubaab. mooy ñëpp di waaye wàll na ci masse yaay masse complexe. masse dañ ko jiital masse xam nga ne kii moo ko tànnal boppam masse bii xanaa xooloo ko kanamam gi mel ne atu bot mbekkoo ah, ay. tey eh, si <laughs> jàmm guddee ngeen de. waaw guddee hmm, ndogu ngeen. naan nañ kafe ci yoon bi. loo togg ndagu kii euh, poisson au four. lan four lu la toggoo ceeb. poisson au four neex na de na jën yi bàyyi rek. jën yu mag yéen. weeru koor jën yi bari dafa dëgër neex waaw. mooy yéen man de ceeb laay ndogo. ceeb rek nga bëgg. waaw benn problème loolu du ñu boole yaay booy. baax nga kon andi ceeb. <laughs> waaw d'accord maa ngi jàll ci weer bi ñëwaat. waaw ñii lay tax ñu wow. Eh, macha allah yow bi jël jonga mën di mooy yow kii fu mu jonga maa ki mel ne butéel. si lan loolu. reer bi. dinaa ko gérer. bàyyi ma ne ma commandé bi. déedéet dama nga dolli pay kese. pay waaw. est-ce dina doy. dina doy man rek ci biddéew. c'est sûr waaw. ay ca yaay en attendant ceeb bi di ñëw. yaay ca yaay. lekk leen ba suur. nga rees jàmm. yaay entrée la alhamdulilah. chut man de lii dem naa ci ba jeex. macha allah neex na la ëpp na. ah yaay ceeb bi mu ñëw wala. jaratu ko day yàq guubi sama gémmi fu ma koy def. yaay yaa ngi saalit. Fama kii sa maas la waxal ak moom. ci lan yaay. mu wan la ni nu mu ko toggee jàng day wees. yaa koy sës ci miiruus bi. ma yéen caw. yow ñaata at ma nekk ak yow doon maa mës a toggal lu ni mel. yow nu ma tuddati sax euh, biddeew lii noo ko toggee. Eh, da nga ko mës a toggal.